jërëjëf mbokk internet ci bu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fay mën a ne del soit ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam kii ma dalal xam ngeen ko xam naa ko Serigne naa Ndiaye borom jaaru bi borom jaaru bi nee naa moom dong ko fi tudd kenn sañu ko tudd ndax secret bi ci jaaru moom dong la ko sama borom xamal waaye tey fi ñuy tàmbalee mooy actualité politique Ngagne Demba Touré jóge na ca Mali ga mu làq woon ñëw di jibale gars yi teg nañ ko loxo dialogue bi président Macky Sall gëm na ko gëmu ko danañ bàyyi Ousmane Sonko duñu ko bàyyi ak Bassirou jamaay Faye loolu lépp tey dinañ ko waxtaanee waaye dinañ waxtaanee dëgg-dëgg xam-xam sëñ Cheikh naa Buur ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel bàyyi la nga néew nga la saan sur Bprod Média ak Bour Gueweul. Bour Sénégalais yi de kontaanoon nañ lool jamono yi ci détenu politique yi génn hmm. waaye am na beneen kontaan beneen kontaante bu des bu a jëw ci kanam jàpp ngeen dana am. waaw lider bi. dana bégloo ñëpp ci kanam tuuti. jàpp ngeen ko bàyyi. ma ne bi dana bégloo ñëpp. gis nga. jamono ji jamonoy waxtaan la du jamonoy tij du jamonoy teg fitna kay kontaan nañ ci leader yi génn waaye beneen kontaante ngi ñëw ci semaine bii ci fan yii ci leader bi kon dialogue bi ñuy wax kon waxtaan bi am na kon ci suuf. Eh, maa ngi wax ak li ma lay wax nag li ma lay wax du loolu saayir loolu baytin la xam nga gars yi lenn leen mën a bégloo muy ki yàlla dogal mu ne ci xoli jaam ñi nit ñi bëgg ko muy kan génn ci kaso bi leen gënal lu mën dem ci àddina moo tax ma ne ni ñu kontaanee ci gone yi génn jamono yii bay booy ñu xam ne danañ kontaanaat ci loolu hmm. maa ko wax Ah, waaw waaw eh, eh, dangay da ngay rek daj. Ah, loolu moom mooy di wér moom. sëñ naa fi may tàmbalee tey ana nopp gi pas gan fas googu nga xam ne daan dox ci nopp di nopp nit ku xonq nit ku weex ak nit ku ñuul. buur xam nga dama wax barki démboo njaay ni am na ñoo xamante si nii bu buñ lay noobloo yàkkamte ne yàkkamte goo xamante si nii dama naan man du ma laaj du jar may laal xawaatim damay teg layu bi rek xaañ ci fas suul li nga bëgg ci ndaw si nga am ko te noob gi nag ñaari fan lay duré. lu ndaw si dëgër bopp dëgër bopp dana topp ni xaj ji toppee borom. na maa nag waaye sama nopp ci yeneen sëriñ ci laay wax mm. du jàpp nit ko xonq du jàpp nit ku ñuul du jàpp nit ku nàngam ñàkk man la ak noot tubaab dafa jafe. ma ne ñàkk man la dama ne la damay xaañ ci fas suul dangaa mag ma mën a génneel benn doomu aadama ak mu xonq mu xees ak mu ñuul bu dul naan ndox ndax am na. yàlla sax xam nga mën ngaa génn ku dul lekku ceeb mm-hmm. mën ngaa génn ku dul lekku mburu mm-hmm. ah mën ngaa génn sax ku dul sangu lu bëri mm-hmm. hmm? waaye munoo génn kuy naan ndox de ku du naan ndox de doo ko génn ci àddina moo tax ma ne la man sama nopp ku yàlla bind koo mën a doon ngay doomu aadama su ma jotee ci tur am la dana la jàpp saa yi ba batin muy góor di jigéen. gannaaw nit ki ko nangam. waaye ñàkk man la nopp yett yi képp la rawhaaniya tabiha bidiw bu dee yow miy góor da bëgg jigéen bëgg koo takk soxna mu ta ticc ne la nopp du la sëyal su ma jotee ci turam man sañ seexu naa borom jaari bi laa ne ñaari fan laa la may mu topp la ne mala di toppee borom bu dee sëyal da ko ba an ko am ci moom bu dee topp la da ko am ci moom bu dee nobal la da nga ko am ci moom te ni ma koy defee lay jigéen ni laa koy defee lay jigéen ni ma koy ni ma koy defee ci jigéen ni laa koy defee góor ndax jigéen it dana nopp góor lool bëgg a jaamu moom yàlla góor ga bañ su ñëwee it ni may def ku jigéen ki laay def ku góor ki noom nag bu xasee romb ñaari fan ku la ko mën a assuré noob gu baaxul man sama noonu koo mën a doon noob gi ma koo mën doon ñaari fan yi doo nga bëgg ci ndaw si nga am ko far force. ci lu waaye buur. waaw <laughs> man lu ne. Mm. boo koy def da ngay feer ci def ko da ngay kontaan ci def ko. Mm. waaye dama ne man ku aajum doo ma xam doo defal nag. dama koy assuré ba nopp doog la koo defal bëri na alxayri yu am jamono jii de ginnaaw yàlla yonent bi bu yàlla wéyee yonent bi wéy sama loxo bi génnu ci te nopp gi rek laa jëfandikoo ñoom ñaar ñu nobante ba takkante doom ci sos am naa ci tiyaaba mu ngi noonu nopp gaa ngi noonu sëriñ Cheikh naa balaa ma ñëw ci jaaru yaramu naqari waaw bari naa gis naa ñoo xamante si ni ñaan dañuy ubbee dañuy maye bayra dañuy maye xaalis waaye ñoom seen jëm da leen xool xam ne ñii dañoo tëju <laughs> da ngay ñaanal nit xaalis yow mënoo am cent mille yu daje li ngay wax amut gars yi dañ lay yàq ba yàq sa yaram yàq sa loxo baa xam nga ne am na yaram yu dul jàpp saafara waaw ah ah am na yaram yoo xam ne saafara soo ci def du jàpp saafara mën naa baax nii nga jet saafara ba saafara si jàpp ñu sangoo ko rek yaram saafara si toj waaw dañuy yàq yaram bi buur xaalis jafewut xaalis neex naa am waaye yoon wañ koy amee damay bañ ñii la koy jafeel nga jàpp ne lu jafe la jafewut de wala bokk ci man boo ñëwee ba ci man danaa la wan yoo wan woon ak wan pexe ak lan ngay def ba mën a am xaalis te doo sonn kama tudd yi nu tuddaamu nit ki lim leble képp lay fayeeku waaye aw yaram bu safut neexut li nga bëgg ci yaram yi du am bu ilaa yu asar da ngay faral di dégg nit ki ñaari nit ñuy ànd kenn xëy moroom ne ko sa sa yaram yi daa neex sa yaram yi mu yor neex na de kay nit dangaa war a neexal saw yaram ba mu neex ba nga xam ne bu la nit digoon sax yàkkamte la ko jox loo yaakaar mu tas. yaramu naqaree ngoog yàlla nañu yàlla musal ci yaramu naqari buur. loo yor mu dem. yàlla nañu yàlla ci kumteeg yaramu naqari. Mm. ba umu dëgg koo waxal mooy na dew. Mm. buur boo umoo dëgg bu tàmbali dara du yàgg de buur boo umoo dëgg bu leb kenn du la lebal de buur boo umoo dëgg-dëgg bu nopp kenn du la nopp buur boo um boo umoo dugg dëgg deel yeex a waxtaan ndax waxtaan woo commencé xuloo cay mujj buur boo umoo dëgg dëgg dëgg dëgg bul ñaani visa bul jéem a jënd oto ndax boo amee oto bi dana dana yàqu bul ñaani visa kenn du la may buuru kumte wa rabbul kaaba cil masaraf kumte doonum néew a gën a sedd doon kumte ñu am kumte doon am néew ñu denc la moo gën a sedd doon kumte ndax ne ci àdduna bii say nawle di tekke di tedd mënoo am ñaar fukk loo def dañ la ko defal yàlla ñu ci yàlla musal soo ñëwee ci sëñ Cheikhouna nag da lay dindil kumte dama koy sekk ni Mm. dama koy sekkilaane kumte gi nekk dëkk ba noppee defal la loo xamante si loolu la mën a sànni ngir nga umu wax si yow. Mm. waaw mbir mi de loolu la ndax nee naa ki mën a ubbi day mën a aar ku mën a aar day mën a ubbi sëñ Cheikh naa la nga daan def ci kayit résultat yu palpable la yu leer la bu njëkk yaa ngi ko daan defee kayitu journalu dëkk boobee. dama caa yokk suma sabiila yasrahu suma sabiilu suma sabiila yasrahu mm-hmm. dafa am lim muñ koy bind buñ ko bindee ba noppi am na lu muy àndal ndox mi ak kayiti journal bi door a ñëw xam lan lay àndal soixante-dix picc da ngay jënd keesu picc picc mu ne nga jël ko tudd turuwaay ji nga xam ne moo bëgg kayit bi tifli ko ci picc bi ba mu naaw ba soixante-dix mit euh, ba soixante picc yi mat laaj ma soixante-dix lu mu jàpp kon fa yakun la ca des nag xóot-xóot la du ma ko leel gars yi di ko pirate mooy ànd ak riyaada bi di ànd ak ndox mi nga xam ne moom ngay def kayitu journal bi nga xam ne kayit yi moom danga koy am far force lu mu fa yàgg yàgg yàgg lu fa gàllankoor bëri bëri bëri lu jafe-jafe am am am am am lu mu yàgg yàgg laa ne su ma la defee lii sa kayit nga jot ñibbi si waxoon naa la barki dee moo jaay ne bëri na sëriñ su daw li waral loolu mooy muur muur yi ma indee bëri. wa rabbul kahaba ci mustadaf billaahi wallaahi wa taalaahi ku ma ko defal nga am say kayit moo nga nekk Amérique yoon bëgg green card ci am bu ma la ko defalee par force da nga am kayit koo mën a doon billaahi wallaahi wal kitaabi mu ngi noonu lu ama ama am solo la ba tey damay doxal sëñ Cheikhouna ma ñëw ci daj dëpp gi du maa la ko tuddee du yaa ko tuddee sa bopp boroom aajo yee la ko tuddee seexu Cheikhouna Ndiaye boroom jaaro bi. buur gis nga lii. pere bii di pere bu sonda. bii doxut ci xaalis nag. kaaraange bii ma takk am doole. bii ni xaalis bii ñëwee am na doole am doole goo xamante si nii ak ni wërsëg wi ñëwee ak ni tuur wi demee. dafay laaj nga defar bii dendale ko ci wetam bu dee mën a. nga xam ne nii lu bii tull rek. Hmm. bii dalalaat ko. waaye buur yow yu bëgg alal xaalis maanaam di am xaalis waxtu wu ne di ubbeeku. Hmm. dafa am jaar boo xam ne nii la mel waaye per lañu wutee boobu per bi mu ngi tudd fay ruus. buur boo ko xasee ba takk ci sa baaraam. danga nga ubbeeku da am bayra danga am xaalis. buur da nga nangoon ndijoor ak càmmuñ ba defe ne jinne lay jox a wa rabbul kaabatil musarraf buur ñi lay jox jaaro bu bon xam nga nan la koy joxee dangay ñëw di fekk ñu liggéey nga ñu liggéey teg nga ñëw laaj la ñu takkal takkal la loolu mënut a baax mu ngi mel ne marchandise moo teg loolu du liggéey de man boo ñëwee ci man koo mën a doon seet ngay jiitu ci jaaro bi mu jël sa tabixa am na leneen lu may jël ci yow ci wàllum adad ak siifur dugal ko ci biir jaaro bi jël fayrus bi teg ci kaw mooy waral boo ko takkee li ma bëgg ci yow nga da koy am. jaaro bi day am sa diggante yow moom. da nga ubbeeku ba jaaxal la danga am bay da am bayra ba mu jaaxal la da nga am xaalis ba mu jaaxal da nga nangoon di joor ak càmmoñ ba defe ne jinne lay jox moom jaaro bi. nit nag lu muy communiquer ci ay at ko ci jëmmam su dee dëgg la. boo xoolee jëmm ji danga xam ne kii li mu wax dëgg la waaye bu dee du dëgg da xam ne li du dëgg damaa yor jaar bi may xaalis foo toll di ñaane dix mille wax du dëgg may def dama ko maîtriser lii dogalu yàllaa sama jëmm ji ma man ko maîtriser ko moo tax lu ma ci bëgg a defal nit ci am am mbaa xam nga ne boo nit ñëw nit dana ñëw fii di may ñaan xaalis mm. ma far ko laaj turam ak turu yaay may ko jaaroo mu dem jàngal la jën jàngal may jën jàngal nu ñuy nappee da doon ñaan si mm. mooy mujj am bay indi di ma dox mm, di li waral loolu nag mooy lii nit fekkuma ci buur bii nag lu neex a dindi mm-hmm. bii ngay séen mënuma cee sax wax wax ju sori ci kaw niñ def ba dëdd ko biddeew yi mu aral ñaari wet yi allahu muhammad moom la àndal mm-hmm. lii xawaatimu Souleymane la biddiw bii nag ci la mbir mi ne. buur lii pour ma jox la ko dangay am at am hmm. lii pour ma jox la ko même boo amul jaaro bii danaa fexe wut ndomba 14 gaw gi takkal la ko. ndomba 14 gaw gi danaa la ko takkal. 14 gaw gi. Hmm. danaa la ko takkal pour mu mën laa aar. xam nga heure boo xëyee man a encaissé xaalis bu la jaaxal xam nga dee fois nit day tiit yow doo am dara nga xëy ko ba rek sëñ bi encaissé ay takki xaalis yu bëree bëree bëri. sa tur yi ñu koy joobee guddi ak bëccëg loolu boo àndut ak kaaraange gu la aar foo jëm te am na ñoo xam ne ni ngay mel du leen neex il faut ñu yéem a sant dara di la sànni dara kon in faut mu ànd ak kaaraange gu koy téye hmm. kilifa yi laa koy defal ak ñi nga xam ne li mu at yi dafa am at yoo xam ne boo ko xasee ba mënoo am lii moom dëgg rek laa wax mm-hmm. il faut say at yéeg ndax du ma sànq doomi jàmm du ma sànq kenn am na at yoo xam ne boo nee ba am ko danaa defar jaadu bi jox la mm-hmm. ah. <laughs> réew moo ne day bu dee Amérique nga nekk ak France da mujj gi président boo wax ak de wala gox ba nga ne ñu lijjanti la. ma ne newoon nga borom jaaru yi ngi fi dégg yëpp danañ dem ba toog jàpp seen njàmbur man man dinaa fi des di borom jaaru bi man si. waaw yegg naante xam nga lu waral loolu. lu dul dëgg rek du yàgg waaye dama ne la buur lii nga takk ko ni cim réew wala nga takk ko ni cib quartier defuñu la chef de quartier ba ngir bayre bu bëreeg doole ju bëri yàlla muy ko kenn. ci journal la nga daan def ci cat foofu laay tëjee lu naqaree lu naqaree rek. mooy ndomba gi. Mm, ndomba gaw. fukki gaw la ak ñeent. Mm-hmm. booy tëdd juróom-ñaari ngay gaw tëdd. boo yeewoo ba sangu ba noppi nga gaw fa gatos yëpp génn ak moom. jaaroo fu la neex. duggoon ci oto ñëpp accident sedd guy danga nga ci yow. Hmm. loolu am na nag. bu la nit dooroon bal dara jay xaadim rasul tudd ko. balu fi tam. billaahi wal xam nga lu waral loolu. Hmm. man lu ma lay jox am naa ko mi ngi sama digg lii ma takk. Hmm. du ma tooñ de. waaye ñeme na ma xool mbedd mu lëndam ma dugg ci xam naa luy lore duma ma lor ndax takk naa lu tax lu may aar mbaa xam nga ne ndombe boo ko xasee ba takk sa alal kenn du ko sànke ci noonu ndombe gi boo xasee ba takkee kenn du la liggéey jàpp la catastrophe bu buur boo xasee ba am ko laa wax dangay mucc saay xaran ba bàytin bi leen day am ci sa jëm loolu waaye def daan delluwaat ci kawam buur ndombe gi day toj liggéey lum mu necc necc yow laax boo ko xasee ba takk dana def sa dana la ko def biir bii daw nga dem ko wax nag buur man lambatuuma li may def daa yàgg ci man li may def ay dogal laa ki may ji kon nag ku yàlla dogal ñu jëflante ci liñ ci bëgg danga ko am te jamono jii day jamono joo xam ne ku toog sànni sa bopp def ko mikke rek xamul looy féetewoo sawaay li moom kañ la ko am am de sawaay jaaxal na ma mooy werante rek fi ne am na ñoo xamante seen i adduna bi xamul lu ñu ciy defa werante ak linkaar doomu aadama waaye sëñ bi ne ci jamono jii war ngaa fexe bañ lay weranteel yow ji la tudd am fulla la bis bu ne ñu ñëw waaye sa wax sa gaa yi lañ la wax diw sàngam lam la wax loolu ne ci yoon a koy def waaye ne ci adduna bi kenn waxul la dara kenn dabawut ci yow kenn werantewut ci kenn xeexut ngir yow loolu moom ak tardement weesu wu ko boo ñëwee ci borom jaay moom ma lay boole ci société bi man hmm. ngay def dindi ñu jëlee limaale nga bokk ci coow li di def li nga bëgg def lépp ci àddina bi fi mu am na ñuy dund ni ñoo xam ne day leen gën xamul lu tax mooy lu ñu dund métti na métti goo xam ne mën sañoon jóge fii yàlla koy dogal de hmm. waaye loo gis dafa am sabab yàlla daay wàcce kaay mi yàlla bi def ciy sàkkar daxañ ci am ñu mu ko xamal wàcc fa leex ak naas yi ni lii mooy kaaraange boo bëggee mucc defal lii boo bëggee nangam defal lii boo bëggee nangam defal lii boo bëggee kaaru jëlal tabaarak nangam ak nangam ubbi miimee def ci lañ koy def yaa ngi dégg boo bëggee mucc jëlal tabat yaddaa ubbi miimee def yaa ngay def yëpp yàlla du ko wane te alxuraan yu set wecc la kon nag ku ko fi bàyyi ba wóolu sa bopp danañ la takk ba nga dëgër sànni la ci àll ba te doo mën a jugati boo jëlee loolu aaroo ko nit ku ne am nga droit ñàkk sa ba kenn du mën ci yow dara waaye man nga waatal ci yàlla doo def kenn dara loolu rek am solo waaye seetaan sa jëmm moom ci jamono jii lu ko gënte doon naa si amul coow lii ku xooli bu bokkoo ci yaa ko yëg man nag soo ñëwee ma lay boole ci coow li nga bokk ci wasalaam jërëjëf